Clédor Sène euh, maa ngi lay nuyu. Euh, njiital euh, mouvement citoyen Claire Vision di askan wi nga bokk ci ñi gën a fës ci xeex bi nga xam ni ay doomi Sénégal gàddu nañu ko ngir ni ñu yore suñu ressources naturelles yi mu leer nañ lu aju justement ci contrat d'achat et de vente bi ñu signé diggante Sénégal ak Mauritanie fukki fan ak benn weer bi ñu nekk la ñu bëggoon a am sa xalaat mu soxal champ Grand Tortue Ahmeyim ñu gën ko xam ci GTA. waaw. keroog le 11 euh, Sénégal ak Mauritanie signé nañu benn accord ak jaayante pétrole euh, gazu Grande Tortue ak bi nekk ci frontière u Sénégal ak Mauritanie loolu dafa toftalu rek ci euh, accord de coopération bi nga xam ni président Macky Sall ak ancien président Mauritanie signé woon nañ ko février ci mois de février 2018 li nga xam ne moo nar a génn ci projet boobu Grande Tortue Ahmeyim parce que ñetti teen la ñaar yi mooy Ahmeyim euh, Ahmeyim da nekk Mauritanie Grande Tortue bi ñun dañ ko tuddee Gëmbal moo nekk côté Sénégal waaye Gëmbal boobu fa la réserve yi nekk foofu dafa taaji moo ëpp léegi ñun dañu décider séddoo ak Mauritanie euh, genn wàll genn wàll kon ñun suñu 10 pour cent yooyu ñu fa am moom la ñu xaajoo ak Mauritanie donc moom ñun cinq pour cent la ñu mujj am téeméer bu nekk juróom la ñu am ci suñu gaz bi nekk foofu. léegi contrat d'achat et de vente bi nag jubluwuñ ci lu dul briser monopole Russie ci gazu Europe. Hmm. parce que loo xam ni 2022 lay commencé lañ koy commencé commercialiser. ñu signé euh, contrat de vente yi deux ans avant loolu loolu rek moo ko waral. Hmm. ministre bi nag daf ko layere ne gaz liquide dafa naqaree stocké melul comme pétrole waaye loolu dafa dafa laaj ñu waajal ko. Hmm. parce que dafa am lu ñuy wax raffinerie pour pétrole mais pour gaz dafa am lu ñuy wax terminal méthanier comme raffinerie rek pour gaz ñun comme ñu ngi jëm ci phase de production ñun dañu war a am soxla stocké gaz. donc euh, infrastructure maanaam usines yi nga xam ne mooy stocké gaz di ko def liquide di ko sottiwaat gaz ci loolu lañu ñu war a dugal suñu xaalis ba nga xam ne ñun ñu mën a jaay suñu produit mu ngi mel ni euh, kuy jaay jën te amoon loo ko conserver glace wala wala chambre froide donc loolu nga war a njëkk a lijjanti euh, balaa ngay dugg ci jaay ni nga conserver ak stocké sa produit loolu aussi waaye signé ni lii dama koy jaay ndax mënu ko denc lu yàgg wax mënu ma ko téye lu yàgg techniquement loolu vraiment ñàkk xarañ la ñàkk ambition la. Euh, ci boobule euh, contrat ministre bi xam na euh, ni ci phase d'exploitation bu njëkk bi ñu ngi séentu million millions tonnes ci gaz ak mu jot lu ñuy yóbbu bitim réew jaayi ko justement ak 70 millions de pieds cubes par jour ci gaz mu toll ci xayma ci 500 mégawatts ndax séddoo bi foofu ñaari réew yi dañu koy def bien sûr équitablement comme ni nga ko waxee léegi ndax loolu jaadu na ci sa xalaat. jaaduwul ci sama xalaat parce que nee naa leen ñun séddoo bi suñu wàll la ñuy séddoo ñun suñu 10 pour cent la ñuy séddoo 5 pour cent lañ ci am loolu maa ngi koy wax ci kanamu Sénégal yépp nag euh, nguur gaa ngi fi seen technicien ngi fi euh, dëgg moom benn rek la Sénégal 5 pour cent la ci gaz digganteem ak Mauritanie loolu mosuma ko bëgg di wax ci samay communication mais jot na mu leer kon loolu du suñu avantage du suñu njëriñ. kon yëf yi la waxoon a demee. Euh, ñun dañu waroon préserver dix pour cent yi nga xam ne suñu code moo ñu ko may parce que code loi la loi bi dafa bind ni Sénégal dix pour cent la war a am donte ñun xeet nañ ko ba di xeex loolu loolu loi buñ ko tënk la contrat bi de contrat bi ñu signé ak ak ak Cosmos ak BP ci contrat bi dix pour cent moo ci nekk ci contrat bi dix pour cent moo ci nekk. président Macky Sall dem Mauritanie négocier benn accord assemblée autorisé ko mu ratifié ko le euh, février 2018 pare pour séddoo ak Mauritanie cinquante pour cent cinquante pour cent moo tax président Idriss Seck doon ko laaj cinquante pour cent yooyu naka la demee moom xam na ko mooy cinquante pour cent wu suñu dix pour cent kon loolu léegi loolu mooy njëkk a ñàkk jaadu léegi nee ñu ngi produire deux millions et demi de tonnes par an soixante dix millions de mètres cubes euh, par jour de pieds cubes plutôt par jour euh, équivalent à cinq cent mégawatts loolu tamit dañuy nëxal xelu askan bi di leen réeral parce que da wax tonne pieds cubes mégawatt loolu dafay dafay nëxal xel li leer mooy ñun mètre cube la xam li ñuy produire foofu ci mètre cube bés bu ne mu ngi tolloo ci quatorze millions et demi de mètres cubes de gaz hmm. li may wax nii ci kayitu Cosmos ak BP lañ ko bind seen plan de production bu ñu déposé ci bureau président Macky Sall loolu moo ci nekk quatorze millions et demi de mètres cubes de gaz léegi ci quatorze millions et demi de mètres cubes de gaz boobu Sénégal mu ngi ci waroon am un million quatre cent mille mètres cubes euh, euh, euh, au moins mu mu dix pour cent mais léegi sept cent millions de mètres cubes la ci am par jour nur na ni bëri na mais mënoon lañu am lu ëpp loolu kon moitié bi la ñuy sedd Mauritanie te loolu xamuñu fu ñu ko teg xamuñu fu ko ñaari dëkk yi teg te ñun suñu contrat yi ak suñu code pétrolier ñu bind ci 10 pour cent. waaye est-ce que bu fekkente ni euh, gaz bi si diggante ñaari réew la nekk seddoo bi tamit mënuñu jàpp ne jaadu na. seddoo bi jaadu na mais seddoo dafa war a dafa war a juste c'est-à-dire comme ñun ba ñuy signé ak ñoom. ba ñuy signé ak ñoom dix pour cent la ñu signé waruñu dem ba ci biir ñu wàññi loolu parce que ñoom seen contrat dañ ko dañ ko stabilisé. Hmm. pendant quarante cinq ans kenn mënu ci yokk dara mais wàññi waxuñu ci dara mais yokk moom kenn mënu ci yokk dara Sénégal mënu cee yokk dara mais kon ñoom de la même façon waruñu woon mën a wàññi lenn ci lu Sénégal am loolu ñun ñoo ko nangu loolu ñu jaaduwul la kon loolu moom la président Macky Sall. ak ex président Mauritanie dugal seen askan. parce que ñoom lu ñu waroon a am mu ngi waroon a jóge ci tubaab seen wàll ñoom la ñu waroon a wàññi comme ni ñu ko defee ci Casamance. am na benn bloc pétrole bu ñu fa joxe. mais pétrole ba dafa jege euh, Guinée Bissau mu amoon benn conflit tuuti. lu Diouf ci bëgg jàmmam euh, sédd ci euh, Guinée Bissau cinq pour cent waaye cinq pour cent yooyu ñu ngi ko génnee ci paaru Oryx Petroleum bi nga xam ne. moom moo moo mooy signataire contrat mooy société boobu ma lay wax ni Moustapha Niass actionnaire la ci woon. donc quatre vingt cinq pour cent la Oryx Petroleum am Guinée Bissau am cinq Sénégal am dix. Hmm. mais foofu felluñu ci Sénégal cinq jox jox jox jox Guinée Bissau dañu fell ci contractant bi kon fii tamit ci Cosmos ak BP la ñu waroon fell jox Mauritanie. Hmm. ku nekk con conservé dix pour cent am tubaab yi am ñoom seen quatre vingt pour cent ñu seddu hmm. loolu mooy li yoon li ñun suñu état yi dañu war a souverain dañu war a défendre suñu intérêt. d'accord et loolu ñu tënk la ñuy loo xam ne jaaduwul. alors code gazier bu bees bi nga xam ne assemblée nationale adopté na ko fan yi lañu ñu génn ndax jàpp nga ne euh, dina gën a dëgëral Sénégal ci koom-koom bi ruusee ci euh, wàllum gaz bi. non non parce que code code gazier bi dañ ko signé dañ ko dañ ko voté gannaaw bi ñu joxee suñu gaz Cosmos ak BP ak Petrotim ak yooyu. joxe suñu pétrole total joxe lépp joxe nañ ko donc def def def code code pétrolier bu bees def code gazier bu bees def code minier bu bees gannaaw ba ñu joxe suñu lépp lépp lépp lépp lépp léegi loi du du du xool ci gannaaw li weesu euh, du ci du ci légiférer li ci kanam lay légiférer kon code gazier bu bees mu ngi am solo bu fekkee ni am na gisement de gaz bu bees bu ñu def ci contrat bu bees bu boobaa code gazier bu bees bi la ñuy appliqué mais li nga xam ne Sénégal moom la ëppale ci àll joxe nañ ko ba pare ci wàllu gaz ak wàllu pétrole te ko code pétrolier bu quatre vingt dix bi moo koy moo koy parce que Sénégal musul am code code gazier code pétrolier bi li ñu li ñu tënk ci pétrole moom la ñuy natable moom la ñuy def exactement ci gaz même loi bi régir pétrole mooy régir gaz ci code pétrolier wu 1998 bi nga xam ni moom mooy tegu ci kaw loolu ñuy séddoog Mauritanie ak la ñuy joxe Sangomar la ñuy joxe Casamance la am yëpp ci pétrole ak code pétrolier bu 1998 nga xam ne bu 2019 nga xam ne voté nañ ko yàggul hmm. boobu du légiférer ci contrat nga xam ne joxe nañ ko ba pare. d' kon mhm. amul benn solo. d' est ce que mën nañ ci dégg ne kon li ñu xas a signé mënuñu cee dellusiwaat. li ñu xas a signé non firiwul ni mënuñu cee dellusiwaat li ñu xas a signé mën nañ étranger bu bees bi mënul appliqué wu ci li ñu xas a signé li ñu xas a lu tax ñu mën ci dellu si muy contrat yi daf ci am contrat yoo xam ni daf ci am lu ci jaarul yoon li ci jaarul yoon loolu mën nañ ko jubbanti tegaat ko ci yoon mais mais mais code yi mënuñu ko xoolaat mais contrat yi mën na évoluer parce que cinq pour cent yi ñu jox Sénégal mais nekkul ci contrat nekkul ci code code code code code pétrolier hmm. loolu jalgati la loolu mais lu ñu war a mën a xoolaat la. d'accord anam ba ñu joxee contrat boobu tamit. Mm-hmm. mais coow lu rëy moo ko lan bu leen fàtte problème mu Petrotim. Mm-hmm. mooy mooy continuer nii ba léegi. même bloc yooyu rek la. d'accord coowu Petrotim bi sax la ñu bëgg a wax ndax bokk nga ci ñi nga xam ni demoon nañu yóbbu euh, seen ay preuve ci procureur ginnaaw bi mu wootee appel à témoin euh, dossier boobu ndax am na lu ci yëngu ginaaw bi ñu leen dégloo. non non man yëgguma dara lu ci lu dul ay rumeur yu ma dégg ci presse bi naan euh, dafa mel ni dañu jëm ci noonu yi maanaam setal euh, ñi nga xam ne ñoom lañ ci tudd mais euh, ñun ñoo war a fexe teg fa lu leer loo xam ne juge bi da day tënku ci acte dossier bi parce que dossier bi mais am na élément yoo xam ne war na mën a dem ci attekaay bi parce que am na rapport ñaari rapport benn bu UG e, benn bu OFNAC am na ay témoignages am na ay éléments de preuve yoo xam ni askan wi joxe joxe nañ ko. àdduna bi yëpp am nañ ko. mu ngi ni fang lu leer loo xam ne loxo président de la république da cee dugg moo ko wax ñaari décret la signé ñeent sax pour rakkam ak Franck Timis Aly Ngouille Ndiaye mi fi newoon ministre euh, euh, rapport de présentation bu mu joxe euh, rapport rapport UG bi sax nee na baaxul waxu ci dëgg. ak disposition yi nga xam ni euh, euh, moom la ñu waroon respecté ci code pétrolier bi pour joxe contrat yu ñu ñàkk respecté ñu ni président na annulé loolu yëpp defu ko. mais est-ce que yaakaar nga dossier bi dem fu bu ñu xoolee euh, position bi nga xam ne déjà président Macky Sall amoon na ko bi ñu tuddee rakkam ci mbir mi. waaw xam nga dossier bi dina mën a dem fu parce que président Macky bu fekkee ni am nañu ñun lu mel ni midi. moom munu ci dara tayeef rek la mën a def hmm. maanaam lu ni fan ñu ni lii kenn lu ko atte hmm. par exemple ñu ni DG port détourné na lii def na lii DG cour def na lii def na lii euh, euh, Prodac am na lii am na lii ñu tey tey dossiers yi teg hmm. mais dossiers yooyu benn demul ci tribunal mais bii dafa dem tribunal bii dafa dem tribunal donc génn na président de la république kon yoon dafa war a def liggéeyam ci baagu élément yi mu am dafa war a atte dossier bi wala mu ne amul dara lu dëgër kon tegee na dossier bi ci suuf mais war na war na statut. alors euh, ay euh, mouvement juddu woon na fi euh, lu mel ni aar li ñu bokk. ñu doon bëgg yëf yi leer waaye dafa mel ni li ñu sumboon sax ni xeex dafa tege ci suuf est-ce que askan bi tamit am nañu engagement ci ci combat bi nga xam ne yéen a ngi koy amal. non askan bi am nañu engagement xëy na sensibilisation bi moo des ak leadership bi parce que booy wootee ci lu sérieux lu Euh, ñu taxaw suñu koom-koom suñu ressource naturelle loolu àndul ak animation dafa war a am message boo dajalee nit ñi da leen war a wax lu leer warul nekk lu mel ni concert wala animation wala ay xumbeel. waaw yenn saa itam mbirum gaz bi dafay xaw a compliqué ñenn ñi day xaw a technique torop yenn termes yi ngeen di utiliser ba xëy na nit ñi duñu xam enjeu yi duñu mën a itam comprendre yu bari. mooy utiliser ay termes yu techniques yu nëxal ni parce que euh, li li ñu wax ci contrat euh, d'achat et de vente dañ lay jox ñetti paramètres yu bokkul ak dara dañ lay jox tonne jox la pied cube jox la mégawatt hmm. loolu communication état la ci benn norme benn norme rek la war a def communication mais ñetti norme mu communiqué ci mais léegi askan bi lu muy jàpp dañuy jaxasoo. Hmm. du ñu mën a quantifier loolu mais ñun ñu ngi def suñu kéem kattan pour tenir discours bu simple bu leer bu mel ni lii contrat la boo xam ne pétrole ak gaz bu nekk Kayar ak saint la président Macky Sall signé na ñaari décret pour rakkam ak tubaabam UGE nee na ko décret yi baaxul effacé ko yooyu def naa communication yi simple la hmm. donc loolu dafa leer ci bopp askan bi kon mën nañu jàpp ne xeex bi bàyyeegu leen ko non non non xeex bi du jeex parce que euh, euh, le fait que mu nekk en justice benn wàll la ci xeex bi te fan yi di ñëw dinañ poser ay yeneen acte pour leeral mbir mi parce que même rapport IGE bi bi ñuy laam-laam mais dañ ko war a faram-fàccee publiquement mu leer ci bopp ñëpp ni rapport boobu la ñu ku ko euh, génnee danañu teg ay daan ci sa dañuy wax rek parce que rapport bi dañu njëkk a miim ni amul léegi ñu ni ku génnee dañuy teg seen daan dañuy teg daan sa effectivement ci première page rapport bi dañ ci estampillé secret képp ku ñu fekk ak rapport bi dañ la toppee article quatre-vingt article quatre vingt la boo xam ne génn ci yombul waaw mm. donc loolu pour pour tënk dëgg rek la pour pour nëbb dëgg mais loolu du ñu tere ñun ñu leeral askan bi ak luñ ci mën ci fekk. Clédor Sène ñu ngi lay gërëm fàttali ni yow yaay njiital euh, mouvement citoyen Claire Vision gindi askan wi ñu amoon te dalal la euh, ci waxtaan wi. ñoo bokk